Serigne Saliou Diouf maa taw feex borom jalañ yi dëkk bi nag mooy yënguwaat moo tax coow li bari na Bakel 24 solaat ay dàllam ñëwaat Touba ci Serigne Saliou Diouf maa taw feex saltige bu mag bi borom jalañ yi réew mi ku ne xam na ni fi mu toll wax yi ak jafe-jafe yi ak jamono ji tëddee moo tax Bakel 24 dellusiwaat nañu tey ci Serigne Saliou Diouf Mara Tawfekh gars yi topp leen ma ci biir ak Bakel 24 dañuy dem seeti Mara Tawfekh Serigne Saliou Diouf borom jalañ yi moom laa dugg seet siwaat Bakel 24 tey dara du leen ump ak jafe-jafe àdduna yi maaraa yi ñi nga xam ni waxkat yi ñiy wax te mun ñoo wax ak ñi xam-xam te xamuñu egsi nañ ci maaraa bu mag bi nu dugg ci biir gars yi damay yot ndax sëñ bu mag bi nee naa la jalañ yi fii la ne yi topp leen ma ak Bakel 24 biir ñu dugg si salaamaaleykum Serigne Saliou Diouf ni ma leen waxee woon léegi rek solaat nañ suñu dàll ñëwaat ci maaraa bu mag bi maaraa bu mag bi nag Serigne Saliou Diouf maaraa tawféex satige bi borom jalañ yi nee naa ki nga xam ne nag réew mi xam nañ ko lool te bàyyi nañ ko xel su ngeen gisee ñu del siwaat jàkkaarloog moom jamono ji tëre dina mettitu jafe-jafe àdduna bi jafe-jafe askan bi waaye tamit nekkinu biir dëkk bi nekkinu askan bi nekkinu nit ñu ñuul ñi ci jafe-jafe ci wàllu rab ci wàllu tawat ci wàllu saafara jàngoro lépp lu ci jëm daal ak tamit coow yi am moo tax ñu solaat suñu daal la ñëw fekk si waat mara tawfiq saltige bi borom jalañi seigne salou diouf ma ngi lay nuyu ma ngi lay fay bu baax baax baax al akim mhm. alhamdullilah ma mhm. leen di siyaare bu baax di santat bu baax baax mhm. ah, euh di seigne muntaha khalifa general yalla suñu borom bayyi ci lool suñu karam mu yàgg fi lool yàgga téye njabootu sëriñ tubaa ba lépp loo xamante naal na na ci liggéeyal ko seexul xadim yàlla suñu borom defal ko comme ko Ah, di jaare sama sëriñ si Amadou Diouf maa bu baax di ko jox wàccu waayam mhm. ko ñaanal lépp loo xamante ni naan na ko ci liggéeyal ko ko comme ni kooku mooy sëñ Saliou Diouf maanaam tawfeex dafa mel tey dafa indi tàngoor sëñ Saliou Diouf tey dañoo dellu siwaat ak yow ci manin bi nga xam ni mani nga ko borom kiraama yi borom kéemtaan waaye tamit ci jafe-jafe askan bi sëñ Saliou Diouf kan mooy sëñ Saliou Diouf ak jamono ji. alaakim kan mooy Serigne Saliou moom soo koy wax maanaam yow rek. Euh, mën nga koo wax askan bi <laughs> ndax man moom daanaka kenn du ma laajte. Serigne Saliou ab taalibe rek la. <laughs> ab ndongo bu gën a yées si ndongo yi la. <laughs> ndongo boo xamante ne ne damaa yaakaar ne ndongo yëpp samay sëriñ la. nekkul ab ndongo rek sama sëriñ man ab ndongo rek laa. taalibe laa taalibe laay doon te moom laa bëgg doon te moom laay doon ba bu may faat. taalibe rek lu ma waaye di jaay lu dul taalibe bàyyi la ak moom. waaw sëñ Saliou Diouf ak taalibe lay woote te ak taalibe dundu moom la saa su nekk sëñ Saliou Diouf jafe-jafe askan bi ci lu jëm ci wàllu góor gu tëje ak jigéen ju tëju ci wàllu faru rab sa Saliou Diouf naka la ci def askan bi. waaw ba tey da nga ñëw rek ci euh, ni nga xamante ni ne moom lañ koy liggéeyee. Mhm. tey koo xamante ne daa tëju. Mhm. mu leen góor. Mhm. wala jigéen ci biir néegu set. da koy xool ci seetu dërëm. soo ko xoolee ci peeta ba mu won la ne la faru rab la. faru rab moom ci benn fan lañ koy dindee fii ci biir. soo duggee ci biir. dañ la koy dindil sër ngay indi. nga sangoo ba pare ñu defal la ci sër bi ñu dindil la ko ci benn fan. bu dee faru rab la. bu dee ci ku góor bu dee ci ku jigéen ndax day dal ku jigéen dal ku góor. waaw bu dee faru rab la moom ci benn fan lañ koy dindi. lan lan mooy seetu dërëm sëñ Saliou Diouf lan mooy dërëm lan moo waral dërëm bi. waaw mu ngi nii ay nit a ko fi indi seetu dërëm moom alalu jinne la. Mhm. ci la dox. Mhm. jinne yoo xam ne comme ma la ko waxee rek seq ak ñoom ah, ne maanaam maanaam jinne yu set. Mhm. jinne yoo xamante ne ñoo ànd ak yow di liggéey rek. xam nga bari na sëriñ yu bari ku jóg leen sama jinne yi sama jinne yi. waaye man de wax dëgg samay jinne moom alhamdulilah. say jinne bokkut ak jinne sëriñ néew ma bokkul de waaye da xam naa ne moom yi ma yor man hmm. sant naa ci bu baax sant nga ci ndax xam naa ne fépp lu may woote lu dul taalibe ñu bàyyi ko man hmm. lépp lu may woote lu dul taalibe hmm. bëgguñu taalibe rek waaw léegi sëñ Saliou Diouf damay gis en général nit di bëgg a tuxu këram di sanc wala muy wut ñu ni ko demal bala la fara ba jiitu wala seytaan jiitu nan lay jiitoo nit ci place. waaw parce que jinne moom. Hmm. daanaka day gis loo xam ne doomu aadama yi sax ñu ko gis. Hmm. te mën ngaa eh, defar sa kër ba mu rafet. Hmm. ba ndax tooxu tooxu. nga dem fekk fa jinne mu toox ndax eh, lu rafet. jinne ko gën a bëgg. xam nga da ngeen di naan jinne foo gi jinne gu ñaaw. maanaam rafet la gën a bëgg. fu rafet. tabax sa disul dara tabax kër ga ba kër ga ba disul dara lu dul tooxu. nga dem fekk fa jinne mu toox nga taxu ci kër ga nag ñaari fan ñetti fan kër ga ngeen di jàppante wala ñaari fan ñetti fan jinne gi làkk benn parti bi ñu ne kër ga di doon làkk côté benn waaye fii làkkul fii rek a làkk mhm. fa ko neex dong lay ñu koy jiñ taate seen biir ndek jinne ko waral boo demee diw a ko làkk wala diw nangam nangam nangam nangam loolu kese kese Guinée Gabon la. léegi sëñ Saliou Diouf nan lay defee noonu nan lay nan lay nan lay àndee ki nga xam dafa bëgg a sanc këram. bu dee koo xam ne daa daa tabax kër ba desul dara lu dul sanc. Mhm. balaa ngaa ba ba ba balaa ngaa toxu ji. Mhm. da ngay dem. Mhm. soo ñëwee fii nii soo amee dërëm ma seetal la soo amul dërëm ma may la dërëm xoolal la boo xam la fa ne. bu dee jinnee fa ne. nga xool. sarax ya nga xamante ni moom nga ko war a saraxee ba jinnee ga toxu. yaa ngi ya nga xamante ni moom ngay sarax soo ko saraxee ci kàttan yàlla ak mbaaxam dina ga abal ndax jinne moom da nga koy génneel ay sarax rek di ko neexal ba mu jóge ci yow mhm. waaye faat jinne yombul mhm. waaw faat jinne mhm. yombul léeg-léeg nga dégg sëriñ si naan mara la jinne ji mun ta rey xar sax booy rey jinne jinne yombu ta rey de ah astaghfirullah sañ sa man de sañ saadi génn la ay sarax ba di neexante ne di la neexal di la neexal ba jinne ga toxu la bàyyi la moom laa gën a mën ne rey jinne Indah indah, illallah mbok yi yéen ñi nga xam yéenay seetaan ci kanam tuuti danaa leen officiel numéro bi ngeen di ko seetaan mi ngi noonu ci suuf ah bu ko defee ngeen contacter Serigne Saliou Diouf yow mi tabax sa kër ñu nag balaa war a tabax kër sax war naa mën a ci Saliou Diouf ba pare ñu la ah waaw kay <laughs> waaye tabax say biir ñu naan gi daaw la fa woon daaw la fa woon wallahi <laughs> fekk ñàkk miine la waaw da ngay gis koo xam day dem jënd kër kër googa jinne moo fa dëkk day day day xëy liggéey ngoon jot mu ñëw fa nekk fa ak mhm. nga dem muul fa nag inton, tonne mhm. une nga muul wallahi ko ay la xëy na beneen muulkat ya doo fa jaar sax. bu ko defee bañ ko birigee ba pare. Mhm. roose wuñ ko. ndax seytaane na rab ko. rab bàyyi ko roose birige kenn du ko roose sax ay ca mi noonu Serigne Saliou Diouf la Mara Tawfekh ah borom njalañ yi tey moom dafa ñëw tàngoor waaye maa ko gën tàngoor ndax lu olof Njaay naan euh, foo foo foo defoon sab loxo delloo fa sab loxo foofu laa delloowaat sama loxo ah Saliou Diouf borom kéemtaan yi ah Saliou nag Serigne Saliou Diouf tey damay ñëwaat ci beneen muy góor gu tëju góor gu tëlee boo gu tëlee am na ñu yor ñetti jabar ba ñeent jeeg jeeg xuloo ko ŋaayoo rek ndekete am na lu ne seen biir lan moo waral lool. budul judduwaale. budul hmm. judduwaale. loxoo koy def budul judduwaale rek loxoo koy def su fekkee loxoo ko def rek loxoo koy dindi ndax na ma leer na bu dee judduwaale la moom soo indee dërëm ma seetal la soo indiwul dërëm su ma ko xoolee man nag alakim dafa am loo xamante ni naa la ko wax. muy lan. damaa wuuteeg sëriñ si lépp loo xamante ne nar naa la koo liggéeyal su ma ko ko gisul ci seetub dërëm pare nga ci xool ba gis ko door koo mën a liggéey. Bakel 24 da nga ko xool ci dërëm xool ba xam ca dem mag lay doon wala bu ndaw ci kanam. bii bii. Hmm. ah barki Seexul Xadim bi ngeen fii ñëw indiwu leen lii. ndax xam naa ne su ngeen di ñëwaat. Ah, di ngeen indiwaat waaw ok ok ba mu ba mu sotti ba mu sotti. di ngeen ñëw fii. Seexul ah. Xadim mi ma wallaahi penku laa jubli di ko wax. di ngeen di ngeen ñëw fii gaare oto bi di wàcce bagage. wallaahi al aziz laa ilaaha illallaah du question télé kon Bakel la moo ñëw seetuwaat Sëñ Saliou Diouf ah. foo foo forob doom delloo fa sab loxo fi ñu delloo suñu loxo foofoo baax jërëjëf di gërëm suñu caméraman bi ah, moom itam tey dara du leen ump ci Bakel 24 ah ci ci góor gu tëju lañ nekkoon ci góor gu tëlee maanaam loxo lu mu def dana ko dindi waaye tamit naka nga def ki nga xam ni maanaam jigéen ñu jubawut kër gu jubawut famille waaw gu bari coow naka la Saliou Diouf def ba jubóole leen. al loolu waxoon naa la ko ci euh, suñu plateau bi yàggul dara. <laughs> Mhm. Euh, euh, man dafa am dafa am ñoo xamante ne am na ñoo xamante dañuy ñëw ci man. Mhm. surtout jigéen yi ndax xam nañ sama mbokku yi xam na li may wax maanaam jigéen yi léegi. Mhm. li ci ëpp maanaam ñi nga xamante ni ñooy wujje. maara yi mën nañoo yendu di ci ñaan ba ngoon jot. jigéen gu dugg rek daanaka loolu mooy sa problème. sama wuj wa nii sama wuj wa nii waaye bu dee man la nag moom. soo ma waxee loo xamante ni ne da bëgg ñu jubóo. alhamdulilah ma defal la ko soo fekkee da maa wax loo loo xamante da ngaa bëgg sama wuj ba jógee fi nanga ma a ma ne la waaw te soo fa jógee ma boole leen ba dootu leen dem kenn dootu dem bàyyi sa morom man moom ci côté boobu laay dox la ilaha illallah ma ne damaa bëgg mu mhm. la waaw jox ma turam te nga bàyyi waale fi sa tur mhm. dinaa la fay ma ne ko soo gisee résultat rek nga ñëw fay si ma ndax man xam nga ne du ma laaj weexal mhm. man balaa ma laa laaj weexal dama lay defal ba nga gis nga door maa laaj nga door maa jox la nga may jox sarax yaa ngay war a joxe moom nga fi bàyyi say te ci yow la jëm waaye weexal moom kenn du ne damaa fay Saliou déedéet balaa nga maa fay da nga cee teg sa bët ba pare moo gën ndax sëriñ see bari mhm. te ku jóg ne maa mën mhm. looloo tax di ay ca kon mu ngi noonu foofu nag laa duggee sëriñ si bari nañ waaye Saliou Diouf nga déparé Ndakaaru wala nga déparé Louga wala nga déparé fu mën di doon ñëw indi dërëm muy la demal ba gis résultat doo a fay kooku maaraab mag bee ko man moom kese la Saliou juuf coow li bari na nag maaraay ku nekk di plateau yi fu ne télé yi rajo yi fu ne di wane kéemtaan di wane kiraama maanaam sëriñ si dañ leen koy sol wala dañuy jàng lu ñuy jàng la xam-xam léegi fa ne. waaw xam nga al akib maanaam. <laughs> maanaam euh, xam-xam moom. su soo demee ne dem tar bi jiw. <laughs> ne da ngaa dem wuuti xam-xam. <laughs> man damaa yaakaar ne al akib war ngaa mën a wut. xam-xam. war ngaa mën a wut xam-xam boo dugal sa bopp waaye waroo dem dina ngay day wuti xam-xam. dem wuti woo leen lu dul luxus. luxus ci télé rek waaw man xam-xam nuñ koy wone waaw gars yi dañuy teg dañuy teg baraadam ndox rek fi mu toll nii mi ngi bax fekk gars yaa koy tàngal ci ginnaaw. <laughs> borom xam-xam yaa ngi fi ñu nekk. Mm-hmm. benn mm-hmm. borom xam-xam yi ñoo ngi fi nga xamante ni ne seeni ruux fa ñu nekk. Mm-hmm. xamuñu télé. man sama maam mos mosuñ ko caméra mosu ko tiimu. xamuñu woon caméra. xamuñu woon téléphone. xamuñu woon dara te ñoom ay saltigi lañu woon. yaa ngi ay borom xam-xam lañu woon. Ah? suñuy maam ñoo mhm. ñooñu nga xamante ni ne dañ daan seq béjjën di naaw dëkk ak dëkk mhm. di def ay ay kii ñu di ay ay mhm. yooyu noonu ñu fees dale xam-xam ñooñu bu mos xamuñu télé booy taxaw ci télé naan da ngay dem di eh, télé di di def ay lekk tak yu kenn xamul xam-xam moom su desul dara du dem ci télé di wone ay lekk tak yu ñàkk fayda yooyu dama yaakaar ne bu dul loolu moom man nag man li mën a mën a xamal daal mooy al man yoruma xam-xamu tele ok moo tax ba Bakel 24 ñëw na moo fu mu toll nii wax yu bari yi moo tax ñun en général ñun fenn lañ koy leerloo ci seetub dërëm bi euh, téléspectateurs yi seetaan nag inna san dërëm Saliou Diouf moo ko wax dërëm <laughs> ci kanam daal leen wax jafe-jafe yi may dund ah Saliou Diouf dana leen ko wax ah inna dërëm <laughs> ci mi ngi noonu sëñ Saliou Diouf ku ko bëgg jot mi ngi ci Touba ah nee naa la ci arrêt bi nee la Touba taw rek ngay laajte fenn rek la ci tata bi numéro 3 bi rek nga ñëw fii nga xam ne moo di Saliou Diouf numéro yaa ngi noonu ñu suuf sëñ Saliou Diouf damay faral di dégg sa wax yu bari Ousmane Noël Dieng maanaam may dégg ngay wax say wax ci moom sa ko Ousmane Noël Dieng nu mu demee. ah euh, lu yéeme ndax euh, daa doon nit koo xamante ni ne mosuma koo gis. Hmm, mosoo koo teg bët. déedéet barki Seexul Xadim. xamoo këram. mosuma koo gis xaw ma sax numéro am fànn. musta ci yow. xamuma moom. ok wallaay xamuma. man mii xamuma ko mhm. waaye nit nag doomu aadama mooy mhm. gis doomu aadama moroomam bëgg ko te yàlla rek tax mhm. Sénégal ñaare day day am lu am nit ki parfois léeg-léeg nga xool koo xamante ni yaa xëy na yàlla xaw na koo dimbale tuuti nit taxaw ne diw dama koo bëgg mu ne ah la la am a tax alal ja <laughs> alal ja tax yaa ngi dégg ah man de seexul xadim seede na ne du ma ko woo téléphone xaw ma numéro am. Mhm. mësuma xam fan la dëkkee. Mhm. mësuma ma moom bët. Mhm. mësuma gis. da nga koo gis ci jalañ rek. dama koo gis rek. Hmm. yaa ngi dégg ba pare gis vidéo mu bëggal ko sama bopp nag man. man maa ko bëggal sama bopp rek. yaa ngi di ko défendre rek. di ko ñaanal di ko génneel ay sara di ko liggéeyal. te yëgul tiinut. man daal maa ko bëggal sama bopp rek. lii lii mooy lii mooy lii mooy lii mooy lii mooy mara lii mooy sang lii mooy lii mooy lii mooy xarbaax maanaam dégg nit gisagoo ko xam ni. maam mi ngi ci ay tolof tolof nga di ko défendre génnee ko di ko sàkkal ay sarax di ko defal te borom jale ñeneen nag de bu ne Ousmane day nekk président est que du ko doon sax <laughs> waaye loolu ci Bakel 24 la nekk sëñ Saliou Diouf <laughs> waaw léegi léegi nag yar xeet défendre nga koy défendre da ngaa gis ci moom ay juux jaaxal wala da nga gis ci moom ay ay ay ay mbir. waaw comme ni ma koy waxee rek xam nga nit ku ne moom mënoo ñàkk mënoo ñàkk ay ay noonu. ba <laughs> mënoo ñàkk it ay gàllankoor. ñun ñii dañuy am gàllankoor. nit ku ne da ngay sa yaram du neex. waaye nag du nga nga nga nga nga nga nga ngay jóg ci sa bopp mhm. ndax ku tedd kaa ne woon su ngeen demee ba jamono naqari te mhm. leen ñaantee ñaanlu mhm. am ku tedd kaa ko waxoon dañ kon nag toll nañ fii moom boppam it wax di ci yàlla gis naa ne sama sa man dama koo bëggal sama bopp rek moom Ousmane Noël waaw te yëgul kiinul xamuma ko mosuma koo gis moom it xamuma mhm. waaye doomu aadama may doomu aadama te ma bëggal ko sama bopp mhm. man maa ngi koy défendre bu baax a baax a baax a ay noonam nag mhm. maa ngi ngi ciy defanteeg moom bu baax baax a baax baax su ko déggee su ko déggut man jàpp naa ne man maa ngi bay sama waa maam su la yëgeeg su la yëgul Ousmane moom ku jëm ci ginnaawam rek yaa ngi ci kanam bari Cheikhul Khadim gaay Saliou Diouf mi ah waaw nekkal suñu ginnaaw Bakel 24 moom itam Bakel 24 it xam naa ni il faut que ñu ñu ñu ñu sensé bunt yi jox la ko seluur yi waaye itam gars yi euh, woote leen Serigne Saliou Diouf moom la euh, Mara Tawfeex moom la ñu fekk si waat tey fii euh, Mara Tawfeex bee passé waxoon nga ñu kéemtaan yu garaaw lu jëm ci wàllu sàcc ah ku kuy jiitaate kuy def noonu maanaam sàcc moom ak ak aar kër nak nga ci nekkee. am nañ ci ben lar bo xamante dir mom lañ ci defar. Hmm. lar boobu soo duggee marché Ocass. Hmm. daanaka su ma yee bone la magasin boo seen soo fa so soo ci buntu magasin ba rek. lar bi benn la. yaa koy joxe. <laughs> ab laar la. gennu nag lay doon. man man man man dafa am benn waaj yoo xamante ne. Mhm. dañ dul tudd tur. Mhm. daa ñëw ne ma man day mhm. dama bëggoon nga ñaanal ma ndax dafa laar boo xamante ne moom da nga koy defar. te laar bi daanaka mooy boo ne la bari xam nañu. ma bëggoon nag man nga nga nga ñaanal ma ndax sama liggéey soo moytuwul laar bi mu ngi koy bëgg a yàq. sa laar baa ngi bëgg a yàq sama liggéey maag boo bi ak daal. même be gang gang lañ nag waaye ñun ñun ñun ñaar ñii ñu ñooy seen seex. Hmm. waaye laar bee ko yàq. waaye laar data laar bi daal mu ngi mu ngi bëgg a sonal lool. gaay yi est que xam geen li muy wax. <laughs> est-ce que xam ngeen li muy wax yéen ah maam magasin yi nekk biir marché Ocass ak Ndakaaru Colobane surtout dëkk yu rëbb yooyu laarub Saliou Diouf baa fa ne <laughs> mooy sàcckat yi ay ñoo ñëwoon fii <laughs> di yàqulu laar bi waaw. ngeen ma nag nag ay gang lañ nag. waaw waaw waaye daal moom. mbaa defal nga leen lu gën laar. ñun ñaar daal ñun ñoo seen seet. xaaj ba yëpp nag laar ba jàpp na leen. xaaju la xaaju xaaju gang yëpp dag moom laar bi jàpp na leen daanaka su ma ñun ñaar ñii daan ñoo ne te xam naa ne moom laar bi dégg nañ la yow laar bi ci bunt bi rek lay ñun nag dañoo bëgg nag ngir yàlla hmm. nga nga nga loo xamante ñun moom laar bi du leen mën a laar bi ñu def ndax suñu a dox mais hmm. dégg ma ne ko ah loolu kay mën naa nekk waaw ñaar kese la a a mu ne ma waaw am na ñeneen ñu des sax waaye xam naa ne ñoo jiite kii bi rek xam ne man ko waaw baax na yéen ñi ñëw de mucc hmm. da ngeen koy xel man ngeen <laughs> bëgg mu ne ma ne ah. yërëm naa leen bu yàgg <laughs> bañ ñëwee rek laa xam ne ñoom bàyyi nañ sàcc billaahi ba ba ñu faatu dootuñ sàcc billaahi bañ ñëwee rek ñoom ñaar ñu ñëw moom <laughs> ma ñeneen waaye ñoom moom bokkatuñu billaahi dugg ak ñoom ci biir te ne dama leen di defal pour ñuy sàcc lañ wax waaw pour ñu pour seen liggéey mën a ci ma dugg ak ñoom ci biir sang leen ba pare raxas loxo ya dëj leen ca kër gi raxas naa loxo ya bu yàgg koo koo ci woowoon tey mu ne la maa ngi liggéey gay yi kooku kooku mala taw féex la nena la pak bi gay min nañ ko de mbay sapar sapar min na fi xuma <laughs> min nga fi ah <laughs> yooyu bul dofa gay <laughs> min nañ fi ha fi nak bu ngeen dege moy lar bi manam day defar ko xamni kenn du sacc ba par jàpp sacc dindil sacc manam maanaam loolu juuf rek la dege gun mu koy wax ci marab mag bi marab mag bi yor nga ay samp ay bidel yaa samp mbeur ak ministre ak i samp bi num demé waw samp mom maanaam euh, waxoon naa la ci euh, ci ci ci euh, suñu plateau yu bari ki def rek naa la. Hmm. man sëriñ yi sax dama leen di sàmp. Hmm. waaw da nga soo xamante ni day ñëw samp samp boppam dem samp daa baax ci nit. di hmm. nga nit ki su la sampee maanaam samp la yow. da ngay am ginnaaw. sampoo ma woon. yow kay moom waxum. <laughs> Ah. ma samp ko boobu mu ne avant ñuy àggali plateau bu fu ne la téléphone bii sonné. ah déet wax dëgg yàlla xanaa dee. sampaat sampal sampaatal. ah daa bëgg ñu sampaat. Mhm. sampaat gars yi leen samp bu baax. suñ la suñ la defalee samp ba pare mhm. ah, dañ lay defal mhm. li nga xamante ne ne moom mhm. mooy doon sa kaaraange lépp loo xamante ni ne tey jii nii soo suñ la sampee ngay nga nga jóge Louga ne da ngay dem Ndakaaru sañ nga maa woo ne ma siñ saali ma ne la waa nga ne ma xoolal ma diggante fi ak Ndakaaru ndax damay waaj ma xool diggante fi ak Ndakaaru soo ci naree ami gàllankoor ma ne la da nga ciy ami gàllankoor waaye génneel saraxe nangam nangam te dem ngay dégg loo dugg rek la cay <coughs> génneel la ci ay sarax mm-hmm. wax la na ngay defee ak nii ak nii loolu mooy samp te ket nga mm-hmm. sampee ba pare bàyyi mi la samp tax mënatulaa liggéey ba mu jàpp hmm? maa la wax loolu su ma la xesee ba samp samp du caaxaan ñu dem samp la ci jalañ pare bàyyi la fa mm-hmm. non non kenn mënatulaa liggéey ba mu jàpp su fekkee da dem ci benn sëriñ bu xam dara laa la wax de su lay xool ci peeta wala mu bind alxuraan su lay xool ne la kii daa am ginnaaw kii dañ koo samp mënoo ci moom dara bàyyi loolooy samp gars yi mi ngi noonu Serigne Saliou Diouf la Mara feex borom jalañ yi ah Serigne Saliou Diouf am na beneen tuur damay dégg tuur ngay tuur maanaam loolu noo koy ànd ak noo koy àndal tuur mi da koy ànd ak ñoom ñoom ñoom kànka ñoom gaa yi ñu tuddee sax ñoom duggagul fi sax. xam nga xam nga maanaam am na ñu bari ñoo xam ne suñu déggee turu jalañ dañ koy aayal. Mhm. wala ñu yaakaar ne lu garaaw la te jalañ mooy xeetu jinne rek. soo hmm. waaw xam nga tey ji mën ngaa toog ne man damaa amee jinne hmm. kenn du la wax dara hmm. mooy soo nee jalañ mooy dama am jinne rek ne nga ne jalañ egsi nga rek mooy jalañ jalañ daa daa daa mooy sotti na olof la sotti na mooy agsi na jalañ ah, waaw loolu mooy jalañ waaye nag am ñu bari ñoo xamante ne ne soo leen ko waxee dañuy yaakaar maanaam lu lu rëy la wala lu garaaw la wala loo xamante ne daal déedéet maanaam xeetu jinne la rek waaye nag maanaam ci wàllu tuuru nag moom man moom sama tuuru du leen lu dul soow wàcce kaamil lu sel secret lu sell rek. Mhm. teg tey. soo wàcce kaamil. Mhm. jeex na. léegi sëñ Saliou juuf ci biir samp boobu nag laay dem ñu dem ak suñu mbokk immigré yi nekk bitim réew ñooñu ci jafe-jafe la ñu nekk ci wàllu këyit ak ci wàllu kaaraange naka ngay def ak ñoom. man de su fekkee ci wàllu këyit. Mhm. am na ci bëri ñu ba ñoo xamante ni ñoo may seetaan ñoo ngi ànd rek. dañuy dañuy dañuy dañuy déggante ak man. fii lañu nekkoon. ñoo xamante ni problème mu la. pour ñu dem fee pour ñu delluwaat am ñoo xamante ne dañu fa nekk nag mënuñoo am kayit pour dellusiwaat <laughs> ñooñu nag laa gën a mën a liggéey lijjantil pour ñu amee kayit ñooñu ci nu gën a gaawee ñoo nekk fee <laughs> képp koo xamante ne déggante naa kee ak yow <laughs> génneel say sarax ma liggéey la ba nga ñëw ba nga agsi ba nga ñëw ba fii door maa jox la nga may jox yow yaay ñëw ba fii door naa jox lan ngay jox. naay la xëy na yéen yéen sa mbokk immigré yi nekk bitim réew ah yéen ñi nga xam ni yàgg ngeen fa lool lool lool te njaboot gi toog di leen xaar te amoo leen ay kayit nee yooyu ay pexe la de. Saliou Diouf mi koy dindi moo ci gën a gaaw nag amul keneen wala ko ci numéro téléphone yi nu gën a gaawee Saliou Diouf am na ñu fa am ay juróomi at ay juróom-ñaari at bu fukki at mun ñoo ñëw. bari am na ne dañ may woo téléphone ma ne am na ci koo xamante ne yàlla xam nañ ci semaine bii lay oh. bii yàlla xam na Colobane bii la la la war a waaj. yaa ngi dégg nee na su ma wàccee ci jour ba mooy wàcc laay ñëw ma ne ko Seexul Xadim seede ne ne amal semaine sa kër ba sa njaboot yëpp gis la. nga door a dox ndànk door a ñëw te nag loo ma jox rek baax loo ma jox rek baax la ban gi ko koy sali Diouf Mara taw feex saltige borom jalañ yi nee naa la lepp ci set sel lako tek ci ci li nga xani ne sow di lako tek la neena ah la fi la nek ci Touba taw fiix ah ci arrêt tata bi neena la bu fekkee da nga jël tata bi numéro 3 bi rek foo wàcce foo laajte sali Diouf rek fenn rek la ben adresse bi borom dërëm setu seetu seigne sali sëñ Saliou Diouf jigéen ju te am jëkkër nak yoy gay bar nañu de waaw am ño ñoo nak ne dara fadura ba leen di hmm. waaw muy bu góor beeg bu jigéen bi far raba leen téye am na ñoo xamante ni ba <laughs> rab moo lay téye ba doo mën a am jëkkër <laughs> wala ku ñëw waxtaan ba dëgër ba desul dara lu du def fu la rek <laughs> nga daal di dem loolu it ba tey day am ci jigéen bi bu dee ne moom moo la téye soo ñëwee ci kàttan yàlla ak mbaaxam dañ la koy daal di dindi ci benn fan ci ko dindilee ba pare nag mhm. loolu laa ni taw ci yow foofu la ñuy duggaat ci bayre boobu la ñuy duggaat maanaam ku yoru bitigam xëy soo ba ngoon jànjeegu benn omo ma gis ku dend ak moom jaay jaay jaay jaay jaay yooyu am nga ci secret mu naa xam nga am nga ci secret ak jigéen góor ne moom jig ñu jubluwun ko kooku tamit bëgg naa nga jox ma tuuti secret. xam nga ci suñ plateau bi yàggul dara. Dakar. Mhm. Mhm. waxoon naa ko dafa am benn waaj yoo xamante ne dañu ne damay xëy. Mhm. bitig laa yore. damay xëy ba ngoon jot. du kenn du ma ne xalaamal kenn du ci biir bitig bi. omo rek lay jaay. du laay omo sax du ko jaay moom. <laughs> moom nee na ma dugal maanaam nit dugg ci bitig bi sax. ne amoo weccet du amul. nee na kenn ma laaj sax ne sëñ bi ndax amoo weccet. nee na damay yendu ba ngoon jot ma tëjaat bitig bi dem dimbale ma ci. ma ne ko bayre ak muslaay de laay defar. Mhm. ndax man du ma def kenn bayre kese. Mhm. mu daal ma daal di koy defaral bayre ak muslaay defaral ko bu teel ba pare dugalal ko ci biir nandalal ko ba mu dox ma jox ko mu daal di dem. déggatuma ko déggatuma ko déggatuma ko ba ñaari weer. Mhm. mu woo ma téléphone nag ne ma sëñ bi naa def ma ne ko maay mu ne ma ah. xam naa di ma jéggal de xam naa xamee tooma sax xaw naa yàgg may boroom bitik ba ma ne ko bitik ba waaw yi ma laa gëj a dikk ma ne ko wala mu ne ma xoolal ñàkk talatuma la talatuma la de <laughs> te da daan xëy di xool ma jaay ma jaay ma jaay ngoon jot ma bëgg a bëgg laa woo far dallu mhm. moo tax mu may mu yàgg waaw kay loolu sama xel de dem Colobane ah ma nuyu waa Colobane bu baax nuyu waa Ndakaaru nuyu waa Ndar moom tam gars yi yéen waa Ndar ah yéen waa Touba gii surtout yéen ñi nga xam ne yéen a jaay en gros demi gros détail ah, bëgg njaay mi gën a gaaw affaire kii la de Saliou Diouf a ko yor Saliou Diouf bayra góor nag maam góor goo xam dafa bëgg soxna yi topp ko fas la wala sunguf la wala sangat la nu mu gën a gaawee. bu dangaa bëgg soxna yi topp. <laughs> bari jigéen nga tey xëpp rek. da nga ko koy xëpp wala da ko koy sangat wala da ko koy takkal. bu dee koo xamante ni moom da koo bëgg rek spécial. Mhm. dañ ko koy defal. Mhm. mu takk ko. Mhm. am na ndomboom. bu dee sangat bi nag mënoo di chaque jour nga ñëw di sangat. waaye bu dee koo xamante ne moom bay bayre jigéen rek. ah. yàlla xam na ne am na nu muy foore jigéen yi sax dañ lay topp jinne yi. jinne yi jigéen jinne yi jigéen sax dañ lay topp. na jot benn maam joo xam ne benn maam joo xamante ni ne mhm. maa ngi ko doon dégg ci tubaab ne dafa am benn kii bu ñu doon euh, benn artiste bu ñuy wax Saliou Nguy mhm. da doon riiti mhm. xam nga riiti jinne da koo bëgg mu fanaan di riite benn céet nag léegi nag jinne di fanaan di ko feccal ba bet set jinne bu rafet di ko feccal di ko feccal ba ba bet set noonu muy ñibbi bi muy ñibbi nag jinne gi dab ne ko yow day yaay borom riiti mun ne ko waaw mu ne ko mu ne ko man maa la doon feccal mu ne ko man te xàmmee naa la kay xàmmee naa la bu baax a baax mu ne ko man nag dama laa bëgg rek te yàlla rek tax du ma nit jinne laa <laughs> rek mu daal tiit mu ne ko damaa bëgg nga wax ma li nga gën a bëgg si àdduna ma may la ko mu daal di tiit ne ko man de riiti rek laa bëgg jinne gi daal di dem bàyyi ba mu àggee daa ubbi néegam te jinne gi duyal ko ci ay riiti yu bees ba néeg bi mënta tëj ngaay loolu lépp ci xeetu bayra la yooyu yëpp xeetu bayre la waaye xam naa ni moom bala maa fay jógee ah Bakel 24 daan ko xëpp bayre xëppaale caméraman yi bayre xëppaale ma bayre ah bu ko defee ñun itam ñu am ay caméra yu bari rek xam nga <laughs> loolu lañ bëgg borom jalañ yi sëñ Saliou Diouf ah, damay ñëwaat ci dernier kéemtaan yu mujj yi muy ci wàllu jafe-jafe réew mi tolluwaay bi fi mu toll lan nga gis réew mi lu gën a jaxasoo ci réew loo xam ne war nañ koo mën a war nañ koo mën a saafara. nañuy génnee sarax nañuy génnee yi nañuy génnee sarax. sarax mel nan. sénégalais yi nañuy génnee lu weex lu mel ni sow ba pare walbatiku yi di wàccee kaamil gis nga kaamil kaamil li muy fenq ci réew mi ak a bari te doomu aadama yi xamuñu nañ ko sax waaye lañuy ñu gën a war a farataal mooy ñuy wàccee kaamil tey balante ak tey jàppalante tey selal tey wàccee kaamil di génnee sarax yi di génnee sarax yi loolu da cee baax lool tey wàccee kaamil tey jéggalante yi baalante ak te yàlla rek tax loolu moom suñ am rek dëkk bi day naat waaye jamono bi may waxee yow nii fi nii jamono bi daa toll foo xamante ni kenn ku nekk bopp sa bopp kenn talatul kenn. waaw ak corona bi. waaw mu ngi noonu. Mhm. doo ci wax <laughs> kookoy Mara Tawfekh Mara Tawfekh bëgg naa tamit nga nga baaxama nga baaxama benn secret mbokk yi nga xam ñu ngi seetaan lu jëm ci ku bëgg a bàyyi tux ku bëgg bàyyi naam ku bëgg a bàyyi sàcc waaw ci euh, ci waat boobu de moom. <laughs> bu dee ku koo xamante ne daa bëgg bàyyi tur. xam nga salaan. <laughs> salaan salaan. <laughs> bu dee koo xamante daa bëgg a bàyyi tur na na na dem. gor ab salaan. muy toog. ngay dégg mu mu tollale ca saw ca. yaa ngi su su ko su su sawee baax boobu noonu baax boobu noonu. Hmm. moom lay ñëw fayal ko ci taatu cigarette bi. tux di tux cigarette bi ba àgg ci ba àgg ci su ko tuxaale bu ci yàlla àndee dina bàyyi tux. maanaam salaan si toq salaan boobu noonu moom lay def salaan si da dañoo gor moom moo koy dagal boppam koy dagal boppam ba muy toq fi muy toq noonu mhm. foofu lay tuur ndox bi mm. mu su ci tuuree ndox toq toq boobu salaan bi toqoon noonu mhm. ak ndoxu ndox ndoxam moom ci boppam mhm. moom lay tuuti rek def def ko ci bopp cigarette bi ci ci ci ba pare taal day tuur ndox ba door door dagg salaan si wala day dagg salaan ba salaan bi toq dagg salaan ba salaan gi toq mu door a tuur ndox ci kawam daal di dajale loola nag diw ko ci cigarette bi. ci cigarette bi ba mu ba mu tooy. yaa ngi mu taal cigarette bi. bu ko tuxaalee rek. waaw di tux ba àgg ci tuxaale ko gis nga xetum cigarette bi saxaar si su ko dugatee xel mi tey fu mu jaar wocc wala boog nga xam ne moom day xel di tuxati di woccu rek di muy metti su su jaagee dina ko bàyyi.